réew mi moom ku topp ay yëngu-yëngoom doo mës a wax ci farata bërki démb coowal Babacar ngoom la woon ak waa Ndengleer démb Abi dal ci kaw Atepa ci ëllëg sa gujaa bi tontu tey coow li ne cobboy ci diggante Moustapha far ba ngoom yaa xam mbay bu mujj bi moom bu ci kaso amul wàll Assane war a ñibbi Njuufeen du ma ci sori damay fàttali rek xam mbay lu kenn fàttewul saaga yu ñaaw yi mu fi saaga woon Guy Marius Sagna ku ñu fay sa bor nga mer la nga leble woon baaxul ah, te ci mu baalu ko àq mu baal ko fa la lépp mujje plainte amu ci woon yoon te ndey ndey rek la ah, foofu nag laa yem ci saaga ndey yi te dellu si ci thème bi ah, di wàllu kaso yi ci Sénégal bu ma laajoon ana kan moo mën a waat ne du mës dugg kaso ci àddinaam ñaara ko mën a waat ku ñeme yàlla lool ak ku jege yàlla lool ndax kaso bu weesoo tayef ñaar yi fay tàbbal nit yëpp kenn mënu ci am mucc mooy ndogal mbaa nattu te ñu bari ñi ñu fiy waate ci seen barke tey dugg nañu kaso ba tey jii rek boo demoon rëbës gële ca cent mètres euh, di fa gis seen i doom mbaa seen i sët ñu bari fa lool te loolu mooy wane ni euh, jombul kenn moom jeel ni ko jeel maa nii di waxee euh, ba moo waral nag ñu war leen a bàyyi xel saa su ne rawatina ci jamono ji ñu nekk muy jamono coronavirus mu lëmbe addina bi ndeem a a boole nag tere leen seen i visite gisuñu kenn ku leen mën a dëfal lekk gu baax dugg fa naan gu baax dugg fa bu yàggee fii laa ko waxee ñaanuma ko yàlla te it nag xelaluma leen ko ñoom prisonniers yi waaye ci fipp la jëm te bu boobaa la fa yàgg xew rek moom moo fay dellu xew pëccëxoo am fa fital ya tàkk ñii gaañu ñii dee te du mujj fenn ndax la fa mujjoon a xew ba fii mujjul fenn gannaaw jombul kenn moom kaso na kilifa yi xool nu ñu koy yaatale ak naka yoon seen géréw baa ngi bëgg a yàgg te mi ngi bëgg a mitti ci ñi nekk ci kaso yi te war a génn bu yàgg te amuñu greffier bu leen signeel kilifa yi nag teg ci war a xool bu baax naka la ñuy def ba ñi ñuy tëj ci kaso bi du am kumba am ndey ak kumba amul ndey lii xew tey ñëpp teg ci seen i gët gisuma kenn ku ko mën a layal génne ci kaso bi Seydina Fall Bougazelli mi jëf lu ne weng loxo ci poos ak ay faux billets ger ay gendarme bàyyi fa Abdou Karim Gueye mi wax donte ay waxam te gënuwul waaye kañ la wax gën a mën a foor jëf ci àddina naam yoonee atte googu da cay baax te sax ay lay wén li ñu war a mën a atte mu gaaw leer daa bari lool ci réew mi quatre yaa ngi fii léegi mu rees te kenn waxatu waxam mbiru pétrole baa ngi fii kenn waxatu waxam euh, mu mel ni li gën a gaaw ci suul scandale mooy ubbi ci ab enquête yóbbu ko ci yoon ba mu mel ni bunt ba koy ubbi moo koy tëj ràpp ba lépp mën faa jaare ñu fàtte ko waxuma ni loolu la waaye nuru na ko euh, bu ñu dellu see ci kaso yi assemblée nationale wote nañu ne ànd nañu ci ñu indi fi ay xeeti lam lam yooyu ñuy takkal prisonniers yi ba kaso yi mën a féex naam lu baax la waaye yeggee bu mu am xàjj ak seen bu ñu ko beral borom barke yi bàyyi baadoolo yi na ci ñëpp yem wasalaam ba beneen conférence incha allah ba àllarba ak